si leen ak jàmm ci seen site yi di VIP people ak VIP info point net ñu fas yéene ñëw nag jégleel leen na seen revue de presse tey ji ci talaata ñaa fukki fan ak ñeent ci weerum novembre 2020 Nabouza is back is back laa leen di tegal nii ñu tàmbalee ko nag ci yéene kaay bi di la Soleil Le Soleil nag moom it daal dina fësal ci xëtam bu njëkk mu ne lan caaroy la poudrière lu waral nag mu daal di wax loolu nee na nag askan wi nga xam ne ñu ngi yeewoo foofee ca gox goxaanu caaro ya jamono ji dañoo nekk ci ay naqar ci tiis lu ko waral jamono gannaaw bi nga xamee ne nag tooke googee feeñ na ci gox boobee sonal leen nag muy feebar gu bon googu nga xam ne moo dal la ñi nga xam ne ñoo di nappkat ya waa caaro yi jógeeguñu ci njàqare de lu ko waral mooy raay bi nag daal dina déraper terrain bi dagg na yoon yi daal di nag ñëw ci li nga xam ne moom moo di yoon yi nga xam ne nag ñoom foofu la ñuy faral di jaar ba tey yemuñu ci de ñu ne wàllum hydrocarbure boobee ca ndox ma nee na xet gu bon nag xet gu naqari ga ca caaroy jamono ji nag képp koo xam ne yaa fay yeewoo boo xëyee rek ci métit ngay xëyee waaye tamit booy fanaan tamit ci métit ngay fanaan mu nekk nag loo xam ne métti na ba fu métti yem ci population caaroy googee buñ jógee ci yéen kaay boobu nag dañuy daal di ñëw ci yéen kaay bii di réew mi quotidien réew mi quotidien nag moom it daal dina fësal la ci xëtam bu njëkk mu ne lan le gouvernement face à la presse tous les 14 jours waaw waaw Macky Sall jamono jii nag dafa daal di changer stratégique de travail nag nee na fi mu ne nii nag communication la gën a fësal ci li nga xam ne moom lay daal di liggéey ndax nee na lépp loo xam ne rek ñu ngi koy def lu soxal sénégalais lu soxal askan wi tous les 14 jours maanaam fukki fan ak ñeent ci weer wi dinañ daal di génn jàmmarloog askan wi dal di len wax nak lepp li nga xamne mom lañuy fassiyene def waye tamit bu changement amee lépp loo xam tamit askan wi war nañ len ko djebbal rek dinañ len ko djebbal mu nek stratégie de comme bo xamne mom lañu teurel nak mu bes tak ci gouvernement bi buñ jógee ci yene kay bobu nak dañuy dal di ñew ci yene kay bi di Vox Populi Vox Populi nak moom it daal dina fësal ci xatam buñ njëkk mu ne lan mu ne Sonko raboche Barth ay maître Moussa Diop waaw gannaaw bi nga xamee ne nag Barthélemy Diaz mii daal dina jubóole kookee di Ousmane Sonko ak ki nga xam ne nag moo di njiital gëm sa bopp di Bougane Gueye Dany bi nag usmaan Sonko moom moo daal di ñëw de nu mu ko defee moom nag daal dina ñëw nag ci tuuram daal di jubóole ki nga xam ne moom moo di bartilimi Diaz ak maître Moussa Diop mi nga xam ne moom moo fi yoroon société bu mag boobee di Dakar dem a dikk ñoom nag nee na jamono ji ci li nga xam ne nag mooy waajal euh, politique bi la ñuy daal di waajal waaye dafa mel ni maître Moussa Diop mii euh, dafa nar a dem nag rejoindre camp opposition yi waaw camp kujje gi euh, déetuwaay moom nag dafa daal di jóge ci pouvoir bëgg a dem ci kujje gi ñoom nag jamono ji ñu ngi waajal former coalition kii di Sonko ak Barthélemy Dias ak maître Moussa Diop mi nga xam ne nag moom ba mu jógee parti APR yàggul dara buñ jógee ci yéenekaay boobu nag dañuy dem ci yéenekaay bi di les échos les échos nag moom it daal dina fësal ci xëtam bu njëkk réconciliation bi nga xam ne Ousmane Sonko daal dina ko dox ci diggante ki nga xam ne moo di maître Moussa Diop ak ci diggante ki nga xam ne moo di Barthélémy Diaz ñeneen nag ñu ngi waajal nag deal politique bu mag a mag a mag a mag a mag mara day taali di ko jëmale nag ci ki nga xam ne moo di président Macky Sall ñoom nag jamono ji maître Moussa Diop gannaaw gi nga xamee ne nag président Macky Sall daal dina ko frustré enregistré mu daal di mer nag daal di mer ba futu gàddu ay bagage am ak dàllam yeeg marakis yeeg veste yi amul fenn nag fu mu daw jëm nag dafa daal di daw dem fekk ji koo kii di Ousmane Sonko fas yéene nag jàppale ko nag ñu waajal nag jàmmarloog ki nga xam ne nag moo di Macky Sall ndax neen daf koo war war boobu nag moo ko métti ba mu mer ba futu fas yéene nag jàmmarloog moom ci dirgu gu jéegi yaayo mu nekk nag loo xam ne doy na waar aba fu doy waar yem maître Moussa Diop mii nee na nag du may dara ki nga xam ne moo di Macky Sall moog Mimi Touré defante rek ba mu neex buñ jógee ci kay bobu nak dañuy daldi ñëw ci kay bi di tribune tribune kay nak mom it daldi na fessel ci xëtam buñ jëk mu ne lan plan bi nga xamne mom la Macky Sall daldi di def pour li nga xamne nak modi communication mom la kay bi fessel neena nak jamono ji Macky Sall nak dafa daldi di jugaat daldi di li nga xamne modi di wax nak lépp lo xamne nak mo moo politique na communication ci la bok way neena daf ci jug nak cette fois ci nak fas ko ko fësal boobu Sénégal yi yëpp xam ne fësal na li nga xam ne moom moo di communication am waaye Macky Sall yemu ca nee na nag li nga xam ne nag moo tey ci mardi ji ay ministre am nag fas na nañu jàmmaarloo ko li nga xam ne ñoo di presse bi daal di commencé liggéey bi nag daal di commencé euh, jàmmaarloo ko ñi nga xam ne moo di wàllum kujje gi maanaam opposition bi te nee na nag jamono ji moom it du leen may dara na li ko dese nag fii ak élection 2024 yi bëreegul buñ jógee ci yéenekaay boobu nag dañuy daal di ñëw ci yéenekaay bii di Sud Quotidien moom it mu daal di fësal ci xëtam bu njëkk mu ne lan Macky à l'épreuve de Maître Wade lu waral nag mu daal di ko wax mais am na ñaar ñu ci ñëw daal di joxe éclaircissement ñu ne nag Macky Sall jamono ji nag dafa daal di ñëw taxawee taxawaayu ki nga xam ne moom moo di Maître Abdoulaye Wade ñaar ci ñoom nag daal di nañ ci wax kenn ki di Ibrahima Bakhoum journaliste formateur moom nee na fii ba nouvel ordre laa leen di waxal ni maanaam

ngaa naan jiñ na dagg ya Ah, buñ jógee ci yene kay bobu nak dañuy daldi ñew ci yene kay bi di wolf Quotidien wolf Quotidien nak momit daldi na dina ci xëtam buñ njëkk mu lan l'immigration clandestine pénurie de accord de pêche Macky pris à la gorge jamono ji nak Macky dafa daldi waru jaxlé ba fu jaxlé yam lu ko waral moy ñàkkam ndox mi nga xamné sénégalais ñàkk nañ ko ndox ko jugul 5 h du matin 4 h du matin 3 h du matin do nan ndox mi nga xamné nak mom nécessité la waaye yemu ci li nga xamné mom modi dégâts yi xam ne wàllum immigration clandestine yi indi na ko nee na nag yemuñu ca accord de yi nag coow lu mel ni tul lekk màlle jamono ji nag Macky dafa daal di jaaxle waaru fas yéene jug nag jàmmarloog problème yooyu yee nga xam ne sénégalais yi ñu ngi koy daal di jàmmarloo bu dul loolu nag fu muy mujjeeg sénégalais yi du neex Ah, buñ jógee ci yéenekaay bobu nak dañuy daldi ñew ñëw ci yéenekaay bi di l'observateur moom it daal dina fësal ci xëtam bu njëkk ah, mu ne lan les pièges d'une élection ah, mu nekk nag loo xam jamono ji nak jaxlé nañu nak li nga xam ne moom walum ku wàllum manam opposition bi bëggu ñu luddul élection locale ñu daldi ko fixer nak benn yoon waye nak Macky Sall mi bo fas wul dina ko daldi di ba octobre 2021 jamono ji nak looloo tax l'opposition bi dañoo daldi taxaw temm na jot na nag puus nañ ko puusati ko puus puuso puuso puus ba jamono ji ken xamatul ba xam ci diggante li nga xam ne moom élection locale dina am am déet waaye tamit ci diggante li nga xam ne moo di ak pouvoir gi jamono ji nag nee naa la coow li mu ngeeg tulleeg màlle ndax nee nañu Macky Sall mi jaaxle donga tax nag mënta fixé li nga xam ne élection locale yi ñii ne déedéet Dafo de dafa pareegul nag dafay daal di tekk beneen stratégie de com waajal ñi nga xam ne nag ñoom ñoo ci locale ndax mu mën ko gagné waajal nag élection 2024 yi en tout cas lu ci mënti am daal mooy doy na waar jamono ji coowal élection locale yi nag mu ngi daal di lëmbe réew mi bu ñu jógee ci yéenekaay boobu nag dañuy daal di ñëw ci yéenekaay bii di source a source a nag moom it daal na fësal ci xëtam bu njëkk mu ne lan nee na neuf ministre tey fas yéene nañu jàmmarloo ko ñi nga xam ne ñoo di média bi daal di leen wax nag li nga xam ne moom moo di seeni programme waaye tamit ñàkkum ndox bi dinañ leen expliquer lu ko waral li nga xam ne mooy mesure yi nga xam ne jël nañ ko ci wàllu immigration clandestine yi ñoom it dinañ leen wax lu ko waral li nga xam ne nag moom mooy licence de pêche yi tamit loolu noonu bi nga xam ne sénégalais ñu ngi koy ñaxtu ñoom it dinañ ci ñëwaat waaye tamit crise sucre bi nga xam ne nag mu ngi indi coowale ci mim réew dinañ ci wax neuf ministre yooyu ba tey pareeguñu de nee nañ chômage bi nga xam ne nag moom moo indi wàllum immigration clandestine yi ba tey duñ ci noppi dinañ ci wax campagne jeex bi nag tamit nee nañu dinañ ci daal di wax maanaam tey daal li nga xam ne moo di neuf ministre Macky sàll waajal nañu pour jàmmaarloo ak presse bi fas seena waxtaan ak askan wi nag jot na nag dafa jot Ah, buñ jugee ci yéenekaay boobu nag ñu daal di ñëw ci yéenekaay bii di libération libération nag moom it daal dina fësal ci xëtam bu njëkk mu ne lan ñu ne ki nga xam ne nag moom moo di Daouda ah, mi nga xam ne moom moo faatu woon ci li nga xam ne moo di immigration clandestine di xale boo xam ne amuloon lu di fukki at ak ñeent dëkk foofee ca Mbuur nga xam ne papa ma ko fayaloon nag ba pare daal di ko jébbal ci gaal gi mu daal di dem ba mu demee nag mu daal di ñàkk kanam ci biir ndox bi ñu sàndi ko ci diggu géej nee na nag son père face au juge aujourd'hui tey nak la papaam ja war a jàmmarloo ki nga xam ne moo di euh, juge bi ñu war ko juger nag moo mag yeneen ñaari nit yoo xam ne dañoo dugal seeni doom yi nga xam ne ay mineur lañ ci biir gaal waaye papa ji ki nga xam ne moom moo jur xale bii di duudu euh, moom it noppiwul nee na amul woon benn yoonu intérêt daal di tayale ki nga xam ne moom moo di taawam dugal ko ci gaal gi te mu xam ne day ci ñàkk bakkanam nee na nag réussite dong la bëggaloon doom di ndax doom di nag daf ko doon euh, paasal pour mu dem nag bu yeggee ci diwaanu Espagne dafa am benn club football boo xam ne war na fa daal di dem taxaw dal di waajal nag li nga xam ne moom moo di carrière na xale bi bëggul woon lu dul football nee na nag looloo taxoon nag mu daal di ko paasal mu dem ngir rek mu daal di tekki dimbali leen dimbal képp koo xam ne xaj na ci buñ jógee ci yéen kaay boobu nag dañuy daal di ñëw ci yéen bii di suñu làmb suñu làmb nag moom it daal dina fësal ci xëtam bu njëkk ñu ne nag guerre des mots guerre lan moo tax ñu wax ko maanaam xeexu wax xeexu wax nag nuñ koy defante maanaam nga jox ma benn ma jox la benn ne ñu jàmmarloo kan kan la nag mu nekk Modou Lo ak Ama Balde ku ci nekk nag wax bu bon boo xalaat di nga ko wax sa morom ngir déstabiliser ko waaye déedéet fans yi tamit nee nañ jamono ji ñoom it pare nañu ku ci nekk loo xalaat ci sa at naataango wala ci sa adversaire di nga ko daal di ko wax mu nekk nag loo xam ne rek possibilité bu nit am rek pour déstabiliser moromam dina ko daal di def nee nañ nag tous les moyens sont bons pour gagner waaw am nañ fulla lu leen neex def leen waaye ba tey di suñu làmb yemu ca nag ki nga xam ne mooy le roi des rois le roi de la musique sénégalaise du kenn ku dul Youssou Ndour moom nag daal dina wax ci ouverture saison de lutte bi nga xam ne ñu ngi koy waajal nee na nag Macky Sall nag na ci jug taxaw na daal di wax ak ñi nga xam ne ñoo di lutteurs yi wax ak ñi nga xam ne ñoo di promoteurs yi ndax làmb ji daa gëj a neex te daa war a neex waaw kay Ndour loolay dëgg na neex a neex a neex di leen jox di daje ba subaak ak jàmm ak salaam jërë ngeen jëf gannaaw bi ngeen lo seen revue de presse tay ji ci talaata ñaar fukki fan ak ci weerum novembre 2020 di leen jox dig daje ëllëg ci même merci beaucoup à la prochaine bye